muy suñu maam Amady Ndak Seck bi nga xam bu islam demee ba tollu fii mu tollu ci Sénégal lu bare bare bare liggéey na ko ci professeur Souleymane Dia wax na ko léegi fàttali ñu ki nga xam ni mooy suñu maam Ndak Seck ak liggéey bi mu liggéey ci islam ak jiyaat bi mu liggéey ci islaam bi ñu toogee sànq bi ngay ñëw ànd ak njaboot gi ñu dégg ay banu fital yu tàkk xam na ni loolu daf ñu fàttali ni suñu maam Amari Daat Seck dafa jaar dafa xeex ak ñi taxawoon ni islaam du taxaw biir Sénégal xeex dëgg la def wax nañu fi mu jaan yépp te yàlla defal ko ci ndam li nga xamante ni président wax na nee na day ñu ngi ci ñun ñëpp ñu bàyyi xel bu baax a baax islam ci Sénégal suñu islam bii ñu am mu sax dëgër mooy islaam bi nga xam ni mooy islaam bi fi yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi mooy islaamu jàmm mooy islaamu salaam mooy islaam bu fitna tegu ci kaw nee na islaam boobu day te nga koy doxal jële ci say maam ci biir Sénégal islam boobu la ñu war a jàngal xale yi ci daara yi kenn bañ a leen fëkk ndax islam àndul fitna àndul ak def naka noonu li nga xam ni moo xew ci yenn réew yi ñu koy wooyee terrorisme islam jegewul sax terrorisme islam jàngale la yoon bu jub siraatal mustaqim def lu jub def lu aw yoon bàyyi lu bon liggéey ngir jariñu loolu mooy ragal suñu boroom liggéey ci àdduna wante waajal fi nga xam ni mooy suñu kër bu muy alaaxira